énoncé par euh, maître Moussa Diop que ne am na ñuy wër jamaa Sénégal et que ko permettre taxu ko euh, demee noonu maanaam au Sénégal depuis des décennies li ñu moom à chaque fois dafay ñëw romb ñu comme ça après on on n'en gis nga Mamadou euh, man damay damay pousser à ce nit ñi di di di di sàkku xam-xam ci li ñu moom. Mhm. gis nga boo gisee ñu bëri ñuy wax ci par exemple pétrole bi gaz boo leen di poser ay questions yu élémentaires par rapport ak ñun suñu évolution législative. yenn saa yi duñ ko sax xam c'est-à-dire que recherche de scandale recherche de scoop. Mhm. moo leen di yóbbu xëy na ci ay coow. ils vont pas mais au fond duñ xam la nekk ci biir. gis nga Sénégal bu fekkente ni jamono ba muy nekk un pays boo xam ne ñi ngi naan kat ñi ngi njort ne pétrole am na fee gaz yooyu mais amaguñu woon xëy na certitude ne am nañu pétrole boo xam ne mi ngi fii ci suñu biir réew ñu mën ko exploiter. Mhm. dafa amoon benn code. code boobu effectivement dafa doon favoriser ñi nga xam ne dañuy ñëw di di di di di recherche parce que ay recherche pétrolière dafa engagé ay milliards yu bëree bëree bëri sans que nga am certitude ne li ngay engagé dina génne dara mais loolu effectivement ki ciy dugal xaalisam da nga koy attiré mais bi ñu demee ba mu leer ñu ni instant bi nii am nañu ay ressources pétrolières yu am solo mais dañu changé suñu code. Mhm. tey jii code ba ñu amoon mu nekkoon par exemple le code de 98. nekkatul le code valable en 2023 ñu ngi woon ci mhm. suñu dispositif législatif. léegi tey jii nii kuy ñëw di di exploiter si fii nii les meilleures normes les meilleurs standards la ñu am. Mm-hmm. parce que dispositif boobu effectivement dañu def circula dañu def circu benchmark dem ci dëkk yi nga xamante ne si ñi ngi produire dem ci dëkk yi nga xam ne def nañ ay dispositifs pour xalaat seen génération yi war a ñëw dem ci dispositifs yi mettre en place un contenu local. Mm-hmm. loolu yëpp ñu dugal ko ci suñu kon ba nga xam ne tey jii nii c'est assez contraignant même pour l'État dugal ci ay yoo xamante ne si pour la transparence sur les industries extractives ITIE mhm. yooyu yëpp état du Sénégal daf ko def non seulement pour ubbi nekk une maison de verre ba nga xamante ni si contrat yi c'est sur internet mhm. yi ñuy dénoncé nii di wax c'est-à-dire ku ko bëgg a am mën nga dem ci internet c'est disponible mhm. donc lu ñuy nëbb bu doon dañ koy nëbb duñ ko mettre à disposition du public amuñ ci dara lu opaque mais effectivement peut-être c'est de bonne guerre. mais li ñuy wax ku ndobin rey sa maam yaa ngi koy a pas profité assez luy luy jeex la ëllëg. pétrole beeg gaz bi pareil. donc on, on a des craintes en fait. Non, légitimes même les, ces craintes sont légitimes mais nañ dugg dans le fond ñu xool qu'est-ce qu'on a mis en place pour permettre que ñu teg dispositif légal réglementaire très contraignant pour mm-hmm. l'État du Sénégal mais aussi très contraignant pour les investisseurs qui viennent pour que ñu bañ a ñëw rek exploiter suñu yëf dem seen yoon ñu bàyyi fi loo xamante ni si tey ji kii ñëw di exploiter si sur la durée. Mm-hmm. li muy bàyyi Sénégal moo ëpp li muy mën a yóbbu. c'est ça aussi euh, l'impact des des contrats pétroliers et gaziers qu'on a signé tey jii ku fi ñëw di investir lii Sénégal di ci gagné moom investisseur bi xëy na sur la durée dina gagné effectivement mhm. parce que aussi il faut le permettre ouais. moom mi dugal dërëm moom mu génnewaat ko mais soo génnee la Sénégal di gagné moom tolloowul sax ak la muy gagné mais avec tout ce qu'on a comme richesse maintenant pour dellu si pour dellu si un ci li nga li nga évoqué léegi mhm. ki nga xamante ne si moom moo sulu coow li je crois que je crois que li mu bëgg rek xëy na il ngi woon mais bu nekkee ci biir gis loo xam ne wala mu njort mhm. loo xamante ne si lii kat jàpp na ne jaarul yoon mais naka wax jamono ja muy nekk ci biir ça c'est de un mhm. de deux tey jii nii ngi wax tudd na ci ay nit ba kenn ki même doon de suñu adversaire la mais niñ ko bàyyi moom mu dem li jëkk porté na plainte déjà porté na plainte et je suis presque sûr que mm-hmm. Jean Claude Mimran du ko bàyyi noonu mm-hmm. coow li sedd président Macky Sall xëy na yàgg na dégg lu nekk ci réew mi mais da ko war leeral aussi non non non xëy après tout ça moom il laisse le soin à l'histoire de répondre à sa place très souvent soo seetloo yu bëri yoo xamante ni si